ngoog tëddee njaaxaanaay ba tax na saay su ne kuñ leen indil rek kenn ku nekk daa ngi yëg sa bopp ku kuñ leen indil rek dëggantaan di ngeen xam ne na koy waxee saay su ne defuñu déplacement ci nul wala dalal ñu fi eh, koo xamante ni dëggantaan dangeen koy seetaan sax seen samedi soir du neex dañ leen koy assurel di leen bégal tous les samedi soir file ci Leral Show ngeen ànd seeg Mariama tey nag dama dugg ci ténor de la musique sénégalaise dëggantaan démb la du tey waaye ba tey tamit bu yuuxoo rek ñu xam ne dëggantaan mag mat naa bàyyi cim réew kan la ñu dalal ñu ne Papa Djiby Ba au soleil nostalgique rawatina waa Star Band ana ñi nga xamante ni ñoo ngi doon wax ana fu mu féete fu mu nekk noom dañ koy namm di ko jàkkaarlook moom te nag moo tax ñu daal di def doxantu wër ci biir àdduna laay wax ndax ku ne xam ne fi mu toll nii basé wul woon Sénégal mais ñibbisi na wër ci àdduna rek daal di leen ko indil rek ah mu daal di def sañseem bu baax fas yéene ànd ak man na ma koy waxee fii la ci leexal show gannaaw ba ñu leen joxee seen nuyoo ba pare moom dañ koy bàyyi rek mu daal di àggali wala mu mottali ci nuyoo bi ma leen jox léegi euh, Papa Djibi Ba asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah mhm. soxna Mariama. Mhm. maa ngi lay nuyu du nuyu waa télé Euh, di la nuyu. Mhm. di nuyu Sénégal gépp te xam ni namoon naa réew mi. wallaay namoon naa it euh, télé nga xamante ne mooy leeral nga xam ne ñu ngi koy déglu partout dans le monde. dëgg la man nag sama doomu ndey sama xarit Iba. Iba Diagne. Iba Diagne Diagne Sala. un grand journaliste. <laughs> Euh, Fatou Mir Ahmed Diouf nga xamante ne genn wàllam di magam. kon boo ma invité fii tey ci plateau bi dinaa sawar tey tontu waxtaan ak yow sur le plan culturel. Mhm. jërëjëf may neex loolu ndax nee naa damay bëgg saay su ma fi nee dégg file rek man ak sama invité ah ngëneel jóge fii information jóge fi ak lépp loo xamante ni tamit daañu ci njëriñu na ma koy waxee saay su ne moom comme na ma la ko présenté nee naa la démb la du tey waaye ba tey moo ñuy béyal waaw. macha allah am na surprise boo xamante ni réserver naa leen ko léegi nii ci kanam nga xamante ni moom ba mu nekk jógee eh, Suisse daf ko àndaale mais laataa loolu rek ñu daal di waxtaan tuuti ah, ah sama première question moom fu mu jëm mooy sa parcours laa bëgg parce que nga wax ma nga wax ma sa parcours mooy lan lan mooy parcours bi. waaw parcours bi soxna Mariama boo ma ko laajee dinaa ci sawar a tontu. Mhm. ndax parcours bi maanaam mooy sama jaar jaar. jaar jaar bi. waaw sur le plan musical. Mhm. à mes nga xamante ne booy seet les années 68. macha allah ci laa jëkk dugg taxaw sur plateau. jamono yi maa ngi ci ballet d'Afrique noire national bu ballet Mansour Gueye. sama première prestation maa ngi ko def Daniel Brottier. deuxième bi maa ngi ko def Sorano. di ànd ak un grand ténor de la musique sénégalaise. nga xam ne woy na fi lu ne di Abdoulaye Mbour dem si yàlla naa yàlla xam sedd. ndeysaan ma yewoo ci pakke param kon boog du ñàkk lu ma ci for kon boog mhm. tey ba moo invité fii tey mhm. ci leeral mhm. euh, tur wi dafa nuru boroom léppay leer waaw ah, léppay leer <laughs> <laughs> buñ nee leeral rek dama koy wax comme son nom l'indique lépp dafa war a leer te lépp nag dina leer may leen ñu nopp rek ñu wéttali leen léegi nii ci kanam dañu ne ubbi téléphone bi euh, ci 78 123 68 68 maanaam da ngay def sa 7 def sa 8 def sa 1 2 3 yokk ci 68 beneen 68 rek daal di accéder en direct léegi nii ci kanam lay doon yóbbi ko ndax bëgg naa ñu waa daal di waxtaan tuuti moom wax na jaar jaari wax ñi nga xamante ni dëggantaan danaa musique sénégalaise dañ ko téye ñi nga xamante ni ñoo xàll yoon bi ba ñëpp ñeme waaye waaye ñi nga doon àndal d'accord wax na fi ñoo ñëpp mais lan moo la poussé ba nga dugg ci woy wi ba dajeek ñooñu. waaw loolu boo ma ko laajee dinaa ci sawar a tontu. Mhm. ndax xam nga ñun loolu mooy suñu wàll. dëgg la ndax bi nga xamante ne ñu ngi dugg ci musique. Mhm. xalaat bi moo doon yaatal musique sénégalaise. Mhm. waaw ndax ba fa ñëwee fekk nañ fi musique yi nga xam ñoo dominé woon muy musique guinéenne. dëgg la musique congolaise. ak musique salsa. ñu ñëw nag imposer la musique sénégalaise. waaw mu doon loo xamante ne euh, war na képp kuy artiste. ndax ah nit ku ne sa aada nga am. te ñun Sénégal rek a ñu ñor. wallaay moo tax bi ñu ñëwee di tàmbali ma ànd ak Abdoulaye Mbuub. Mm-hmm. Ah, ñu jógee muy indi ma Miami Star Band Papa Alioune Kassé. Mm-hmm. ma nekk fa ba ma fa jógee ci la créé orchestre leen le number one. de Dakar. Mm-hmm. ak ñoom Papa Seck mi nga xamante ne moo doon chef d'orchestre bi. moo créé woon Africando. buñ fa jógee it am na yeneen orchestre yi ñu fa tëgg. waaye nag li la xamal ne moom mbiru sénégalais rek moo ñu ñor. di vulgariser li nga xamante ne mooy sunu aada ak cosaan ndax culture daanaka mooy cosaanu réew. te nit ku ne. te cosaan da nga ko war a sàmm di ko suqali. waaw loolu daal mooy li nga xamante ni mooy li la li la jooyloo da nga ne daal carrément danga nga bëgg a sukkat li nga xamante ni mooy musique euh, euh, musique sénégalaise sénégalaise ah. léegi ñu ne ñu ne star band plus tard ñu ne number one mm. changement de nom boobu est mën nga ma cee wax dara ah dinaa ci sawar ndax xam nga musique sénégalaise dafa yaatu mm-hmm. Mariama mm-hmm. ndax bu ñu nee musique sénégalaise mm-hmm. ñu bëri dañ ne mbalax dëgg la dëgg la mbalax waaye mbalax benn fànn la rek ci musique sénégalaise seeni jamono sax salsa bee fi dominé waaw waaye mbalax ci musique sénégalaise dafa yaatu li lay wan dafa yaatu ndax bu ñuy nee musique sénégalaise ñëpp ne mbalax te mbalax benn aspect la rek ci musique sénégalaise. ndax boo demee Casamance. jom bombalongo nga fa. ñoo ngi seen cosaan seen musique. te kooku dafa bokk ci Sénégal. maa ñu ne dem ba Bassari. Mhm. dem ba Tambacounda. Mhm. dañu am seen musique ñoom. dëgg la les Bassari. dëgg muy musique sénégalaise ba tey. Mhm. nga dem Sine. Ah, am la mbiling ca séeréer yi. waa Fajut. ne ngel ñu tëgg lu neex ne ngel. ngel la ñuy wax faajit c'est des rythmes c'est uh-huh. te loolu ci musique sénégalaise. Mm-hmm. ñu dem nga dem ba Fuuta. Mm-hmm. dem ca la yeela. wallaahi la ko wax waaw mu doon it <laughs> lu lay wax ni musique sénégalaise dafa yaatu. Mm-hmm. dafa ndax bu ñu nee eh? ah da dem ci Dagañ ca waalo waalo. waaw Dagañ. waaw nag foofu mu ngi mooy cosaani wolof. tama ji rek waaw tama ji <laughs> Iba mi xam na ci lu bari ndax fekk na ci lu bari. <laughs> kon donc Mariama tey tey bés bi dafa riche tey. day riche dafa riche ndax leeral moom. <laughs> wax bàyyi xel moo tax ah. bés bi dafay riche ndax da ngaa riche macha allah. ah da ngaa riche macha allah yal na yàlla yal na yàlla laf cat mais à l'époque na ma la ko waxee seen musique ba tey mu ngi màgg ba tey yéen a ngi bokk de na ah. mm. nanu koy waxee mais nan nga gisee musique seen époque ak bu tey bi. waaw sunu musique bu njëkk. Euh, dañu bokk ndey bokk bàyyi. ndax ñi liñ taxawoon moo doon Sénégal benn boppale kenn mënu koo xar ñaar. Mhm. moo tax bi ñu jógee star number one. Euh, daje rek ki nga xamante moo doon le directeur du conservatoire. Mhm. yàlla ay xam sedd Abdourahmane Diop. moo ñu a jàppale yóbbu ñu école des arts. yëkkati instrument INAS ñu mooy suñu première formation. dëgg la. ndeysaan jox ñu saal ñuy répété. dëgg fu jógee it. Mhm. Euh, mu doon loo xamante ne Sénégal yi rafetlu. Mhm. waaye gis nañ ne mi ngi Sénégal ba mu commencé yaatu. Mhm. Euh, dañuy def loo xamante ne wax dëgg yàlla Sénégal lañ ciy bëgg. ndax dem nañ ba bu ñu fu ñu tourné fu ne dañuy topp fu ne li lay wan ne mi ngi Sénégal da doon màgg. Mhm. ñu créé it orchestre national bu Sénégal membre fondateur la bu orchestre national. pour wane ne le Sénégal euh, c'est pays de diversité. ndax c'est la diversité. il faut promouvoir la diversité. moo tax ñu créé orchestre national. pour ethnie yëpp. Mm-hmm. benn orchestre di wax ndoo li nga xamante ni ku ci nekk sa waaso mm-hmm. ngay jéem a suqali mm-hmm. waaw loolu wax dëgg yàlla bokkoon na mais seen jamono seen jamono na nga ko waxee mm. euh, ba ngeen ko créer fekk yéen a ngi doon doxal car macha allah. Mm. parce que nee naa la fondation yooyu béykat ni mm. man bu ma sox maanaam bu ñu soxla woo ku soxla woon tëgg ngeen ngeen tëggal ko seen jamono nga xam ne nii ngeen téye woon réew mi ku soxla woon un an à l'avance nga koy ngay demander nga ngay ut sa date mu doon succès boo xamante ne Star Band amoon na ko fii ci biir Sénégal mm. nan ngeen doon dundee succès boobu waaw succès bi dafa demoon ba ëppi loxo ndax xam nga bayre bu ëppee day sonal borom bayre bu ëppee dëgg la day sonal borom te nëmboon tollu na jamono yoo xam ne danaan jógee fii dem ba ay Nouakchott di tëggi ndeysaan fàttaliku soirée bi ñu tëggoon euh, euh, président Maktar Ould Daddah ñu jógee Dakar dem tëggi ko dem demi Mali mhm. ànd ak royal royal band. Mhm. ànd ak ñoom Salif Keita ñoom mhm. Mouri Kanté mi tey. Mhm. yàlla na yi xam sedd. li li wan ne loolu rek moo ñu ñor ñun musique sénégalaise la yaatal. dëgg la dëgg la wax dëgg yàlla. Uh-huh. Euh, sénégalais dañu doon loo xamante ne ñu bëgg seen culture la waaw ñu bëgg seen culture ngeen nekkoon star yi nekk vedette yi. waaw yàlla mu doonoon wax dëgg yàlla ñu rafetlu. macha allah macha allah. bu fa jógee créé nañu Jandeer orchestra. ba pare jóge fa teg créé waat ak ñoom Thione Seck. ñoom Thione ñoom euh, Papa Mbuub. Mhm. ñoom Cheikh Faye. Mhm. ñoom Lamine mhm. ci orchestre Sahel. ba pare ñu créé waat orchestre Sahel. ak ñoom Cheikh Tidiane Tall. macha allah ndeysaan Seydina Wade. ci jamono yu madame Dieng Sala. waaw Ndiougo Kébé nag moo doon sunu le milliardaire Ndiougo Kébé. Mhm. borom holding Kébé moo doon sunu kilifa. Mhm. waaw jàppale wu ñu doon suñu papa nag di ñu mhm. tette lu bare bare bare. macha allah macha allah euh, ba léegi mën nañ mën nañ ubbi téléphone bi parce que gars nee nañ ma ah song nañ ñu ah ñu jël benn auditeur anat laata ñi ñuy àggali ah nañu mën ngeen ñu centré benn rek benn euh, si la 68 68 78 123 68 68 bu kenn accès rek ñu daal di ko dugal ndax boobu ba léegi ñu ngi ma naan hmm. gars yi ñu ngi ci ñu ngi ci téléphone bi hmm. macha allah nee naa ko dafa jóge Sénégal daal di dem France France avant Suisse hmm. lan moo tax nga jóge Sénégal daal di dem France en attendant auditeurs yi di ñëw. waaw li ma yóbbu waaw jërëjëf Mariama li ma yóbbu Europe. Mhm. maanaam yaatal sama gustu ci mhm. wàllu musique bi ma dee li may liggéey. am nañ appel daa mel ni. ndax ayca mën mun heure bu heure bu appel accès rek mën ngeen ñu ko dugalal. ndax ñoom ci la ñu bokk. voilà ay ca ñu continuer. li ma yóbbu France. Mhm. moo doon yaatal sama gëstu. Mhm. ndax bi ma nekkee Sénégal daan musique. Mhm. daan naa musique nii rek waaye xaw ma woon maanaam les règles de la musique. xaw ma woon lan mooy solfège. am am na ko agsi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bi ñu ngi lay ziyaar bu baax a baax. allo yaa ngi ñuy dégg. ah ñu ngi delloo ziar soxna Mariama. waaw ñu ngi kontaan ci appel bi. léegi ziar bu baax di. jërëjëf kooku kan la papa bi toog foofu papa ji ba. Mm-hmm. Ah, tur bi Mamadou Ndiaye la. Mamadou Ndiaye. waaw dari da ngeen invité tey koo xam ni daf ma neex trop daal. dëgg la. waaw papa ji ba xëy nag ba muy woy juddoo wuñu ay xale yu ndaw lañu. waaw. waaw. waaye yàlla dafa def moom daal dafa nekk suñu xol xëy na dama doon sax yàlla xam ne dama doon déglu soo am nii sax. ndeysaan ndeysaan. par exemple yam ji yam ngeen jaam ngeen invité woo. waaye lii neex na di ma Ndiaye fu mu ñuy woowee. waaye maa ngi leen woowee Malika. yaa ngi ñuy woowee. allo. Ndiaye Diatta foo ñuy woowee. yaa ngi ñuy dégg. alo waa ñu ngi lay dégg bu baax a baax Ndiaye Diatta Mamadou. waaw maa leen woowee ba Malika. Malika. Malika waaw dama doon déglu son rek Fatiane ci moom ngeen jàpp invité woo. saan kontaan nañ ci waa Malika. Ah, man yàlla dafa def damay ko xam ne moom ay son wetro laay lu may faral di déglu daal. Ndeysaan Ndeysaan. waaw te ñu may gën ku mel ni papa ji ba da cee damay tapp YouTube ay son rek laay gën a déglu. wallaay wallaay wallaay. vraiment nekk mag ñoo xam ne maanaam li ñu woy moom. boo mooy nit na ko fi gaaw dafa defati. nga ne ban son moo la gën a neex. wuyu ma moom laa doon déglu nii sax wuyu ma bi déggal loolu <laughs> macha allah. di naan wuyu ma di yaa ma de wuyu ma. waaw ñu ngi koy ñaan rek moom suñu papa yàlla bàyyi ko ba ci kanam ak kanam. amiin amiin amiin amiin seen bopp yàlla nañu fa yàlla eggal. ñu bokk lépp mu neex. waaw bokk ci télé gën télé ñi gën di dégg. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf ah kay kontaan naa ci soxna merci beaucoup di nga gën a kontaan ndax nee naa la dinañu bëggee ba 10 ba ba 23h incha allah. jërëjëf ok papa Djibi Boy ñu ngi lay ziar. yàlla yàlla nangu ziar. ok amal jàmm rajo yàlla na yàlla may gudd fan ak wér. amiin amiin amiin. jërëjëf. ayca bu ci keneen toppee rek ñu jël ko 78 1 2 3 68 68 merci beaucoup Mamadou Ndiaye depuis euh, Malika ñuy sant bu baax a baax waa Malika di sant waa àdduna wërngël gépp ndax ñëpp a ngi ñuy bàyyi xel alo allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi noo def. maa ngi lay siyaare. ñu ngi delloo siyaar bu baax a baax tur bi naka la ak fan nga ni woowee. sister Maria. maa ngi nii toog. nu ngeen ma woowee ma wuyu kooku. <laughs> Big Taf la. eh Big Taf waaw Big animateur bu mag la. mu ngi 2STV ah, ah, mu ngi mu ngi Atlantique mu ngi mu ngi aussi euh, euh, Dakar ba sa naka naka buzz sunu buzz. ah Dakar Dakar buzz. waaw kay ça fait plaisir ma dégg la frérot sama laqal. Eh, eh, kon ma noot <laughs> bu mag bi wuyul. Ah. sali célibataire bu mag bi. waaye non mais grave célibataire du <laughs> mais kontaan naa mais kontaan naa en tant que acteur boo xamante ni yaa ngi dalal ay gan macha allah di dalal ay ay musiciens lan nga mën a wax ci sunu papa ji toog tey. waaw li tax ma gën a woote sax yow sama fils la. sama sama sama xarit nga. dëgg la. nga mën li ngay def lool macha allah man naw la ma respecté la. dëggal jërëjëf. mais kon ñu ngi déggante chaque jour kaw ma ni dama woote suñu. Uh-huh. mais dama woote pour suñu papa jooju nga xam na uh-huh. ñun peut être bi muy way juddu wuñ. dëgg la. mais way wayam bi ba léegi dañ koy am envie di ko déglu. Uh-huh. parce que li ci gënoon neex mooy way bi dafa set. dëgg la. mélodie yi claire. dëgg la. titre bi original. Mm-hmm. macha allah paroles yi neex a jàpp ba pare leer ba pare. wallaay importance ci réew macha allah. donc loolu rek c'est quelque chose à saluer. Mm-hmm. parce que moom moom moom moom légende la te dañ ko war a jox cër monument la. monument macha allah wallaay. je prends l'occurrence de euh, Amira bi nga xam ne reprendre na son. waay waay waay chéri chéri koko bi. gëm naa ne ci ñu bëri sax di leen a mën a demaat xool kan moo way way dëgg la dëgg la donc du ñu def lu dul dañ koy encouragé mhm. di ko ñaanal yàlla guddal fanam bàyyil ñu ko fi mhm. et puis te mu ñëwaat am na am na place parce que suñu papa yi ba léegi seen i faral dañ ko dañ koy soxla mu ñëwaat way ñu dégg parce que mbaat bi neex na macha allah mën na way saa du fexe waaw vraiment loolu daal laa mooy wax ne kontaan nañ ci moom vraiment. merci beaucoup sa fait plaisir ñu dégg ñu dégg la kontaan naa ci appel bi. <laughs> vraiment kontaan nañ Big Taf ñu koy sant bu baax a baax di Big Taf euh, mu mm. doon koo xamante ni kenn doon ko présenté ti fii ci Sénégal avec euh, sa belle voix macha allah. Mm. merci beaucoup Aïcha 78 123 68 68 mais fi ñu nekkoon am na solo. muy muy muy nan nga def noonu lu la tax a jóge Sénégal. daal di dem. fi nga xamante ni mooy France. nga jóge France. Mm. daal di dem Suisse ba former sa groupe. Mm. ba nga xamante ni am nga ci ay duo ak ñi nekk foofu noonu. Mm. jërëjëf euh, soxna Mariama. Mm-hmm. Euh, bi ma bi ma jógee fii bi ma jógee fii dem France idée bi moo doon ma yaatal sama gëstu ci wàll gi ma nekk di musique. dëgg te ba ma fa demee yàlla dimbali na ma ma dugg ci benn école bu mag bu ñuy wax mm-hmm. Hector Berlioz. Mm-hmm. mooy conservatoire bi gën a rëy ci musique. dëgg la ma dugg inscrire foofu jàngaat musique. ndax dëgg la maa ngi doon musique fii. waaye xaw ma woon luy solfège. solfège ah, allo mais bi ma demee nag ba jàng ba dem. foofu. Mhm. Mhm. dama gis. Mhm. mën naa di jàngat solfège pour mën a yaatal sama gëstu. d'accord ngir partager sama expérience ak sénégalais yi. allo yaa ngi ci biir soxna si salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ziyaar bu baax a baax noo def tur bi naka la. ñu sant yàlla Safia ah, dafa mel ni déggatuñu ah mais ba tey 78 euh, la 123 68 68 ay ci ñu nekk fi ñu nekkoon baax na loolu ndax information phare la nga jóge fi daal di dem ci benn école bu ñuy wax naka. Hector Berlioz Hector Berlioz. dans le dixième arrondissement à Paris. dëgg la boo fa demee inscrire ma inscrire au conservatoire. Uh-huh. Uh-huh. Euh, wax dëgg yàlla. di uh-huh. jàngaat musique. ndax daan naa musique fii Sénégal. waaye xaw ma woon lan mooy solfège. Mm-hmm. dama daan musique nii rek. waaye moo mm. demee nag Europe ba France ma mm-hmm. duggaat école boobu jàngaat musique mm-hmm. xam nag lan la musique di wax mm-hmm. ndax da ci am solo dëgg ndax loolu nekk na loo xamante ne lu ñu war a dégtal xale yi ndax musique sénégalaise toll na foo xamante dañ ko war di bind ndax on a vu l'expérience ak ku ci mel ni Chopin doon daanal bu mag a mag mag ci Europe bi mu gaañoo léegi war na mat ñaari siècle ayca li muy wax dafa amoon solo loolu ma bëggoon mu daaneel laataa ñuy jël keneen mais comme que dugg na salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. maaleykum salaam. waa ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. allo. allo waa ñu ngi lay dégg bu baax a baax yaa ngi ñuy dégg. waa maa ngi dégg. waa ñu ngi lay nuyu tur bi naka la. maa dégg bu baax a baax. tur bi naka la. waa bi Aminata Gueye la. Ami Touré. Aminata Gueye Aminata Gueye. Ah, Aminaka. Gueye noo def. Aminata Aminata yaa ngi dégg. Mhm. da déglu ci téléphone bi rek ah, mu daal di gën a neex Aminata foo ñuy woowee. yaa ngi woowee yëmbal. naka waa yëmbal. alhamdulilah yal na la jàmm bi yàgg Sénégal macha allah càkk ci àdduna bi wërngël képp ana loo wax tey ci suñu gan gi ñu dalal suñu papa ji macha allah. xanaa bég si moom lool. Mhm. yàgg koo ba may doon tuut tànk. wallaay. naa daan déglu ay misigam. ndeysaan. moom lañ daan tooyee. ndeysaan. mu neex ñu lool nag. Mhm, mhm. tey bi ma ko gisee mu toog sama doom yi laa doon laaj xam ngeen kii toog. ndeysaan ñu naan déedéet ma ne leen kii moo way way bi gel bi wayaat mooy waa Amira xamoo leen ma ne ko xamoo leen ko booba juddoogoo leen dëgg la dégg <laughs> nañ ci moom de dëgg la jërëjëf jërëjëf Aminta Gueye di ko ñaanal wér ak gudd fan amin amin amin jërëjëf ay euh, ca merci beaucoup ñu ngi bég bu baax a baax ci waa yëmbal bég ci waa àdduna yëpp macha allah ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre file euh, ci Leral TV ma fàttali leen rek ne yéen a ngi seen émission Leral Show fii ci Leral TV ngeen ànd seeg Mariama mu dalal ki nga xamante ni moom mooy Papa Djiby Ba euh, une ténor de la musique sénégalaise macha allah kenn dootu ko kenn dootu ko présenté ah macha allah yal yàlla laf cat rek ñu jël kooku ba pare ñu daal di àggali àggali fi ñu nekkoon allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. madame ça va. ça va très bien merci et vous. voilà moi je m'appelle Abdoul Aziz Ndiaye. Abdoul Aziz Ndiaye Diatta vous nous appelez d'où. Euh, je vous appelle depuis euh, la rue Ngalandou Diouf angle Bangi. d'accord. donc moom war na ok. war nga ko xam nee na mm-hmm. léegi da koy danga koy da koy wax expliquer benn histoire boo xamante ni rek dina ko fàttaliku dama lay bàyyeek moom waaw ok bàyyi ma waxal ak waxal ak moom auditeur salaamaaleykum euh, Pape Djibi mm-hmm. waaw Pape maa ngi mm-hmm. fi Ndiaye du Ndiaye waa Ndiaye Ndiaye Ndiaye man la Ndiaye euh, euh, soxna si damay wax ni kooku moo way Sénégal jàmbaar waaw Sénégal jàmm moo ko njëkk Sénégal di si jàmm dafay neex. dëgg la. après ngeen kaleel ma benn sonwam ah. Hmm. après. Mhm. mu woyu aawu Bamba temps groupe Sahel. aawu hmm. Bamba macha allah. <laughs> après. mu woy Jo Diagne Mansour Diagne. Mhm. après mu woy Balia. Hmm. Mhm. wallaay après chéri coco. chéri coco macha allah. <laughs> mais nag bi gën a siiw. Uh-huh. Ah, mooy Sidibé bi. Sidibé Baliya bi waaw. ne ko. ne ko man doomu Maguette Ndiaye laa. nee na doomu Maguette Ndiaye ah kooku sama mbokk la. waaw waaw. <laughs> kooku sama mbokk la yow. allah yow yaay borom lébu. kooku moom lébu la moom Ndiaye. lébu doy Maali Maram Ndiaye jaata. kon nag gis nga soxna si pour vous dire ñun. bu ñu xamee musique. bëgg ko jusqu'à nos jours. c'est grâce à su moom nijaay la ci man. ndeysaan. donc depuis à bas âge laa ko suivre. jamono yi ko forces armées di leen engagé ñoom ñu leen di tëggal. Mhm. mu ciy way sama papa Maguette Ndiaye. ndeysaan. donc mu doon cousin ci moom je crois. Mm-hmm. donc euh, pour ne pas trop accaparer la ligne. Mm-hmm. donc dama naan pap guddal fan quoi. jërëjëf Amine. Hmm? ndeysaan donc rek ma foofu. jërëjëf Ndiaye Diatta. Ah, ñoom Birane Ndiaye ñoom ñëpp nuyu nañ la ñoom sama bàjjen. ndeysaan may bu tëngee. ndeysaan ndeysaan ndeysaan jërëjëf. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup léegi léegi xam naa Xasan danga may may rek xam naa ni danga ma koy may moom mu koy acapella fii mais faw ñu dem tuuti rétro pour les pour les nostalgiques yi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi xel laata ñuy ñëw ci quelque quelques quelque son yu récents yi nga xamante ni def na ko mais soo ma munoon tegal chéri kokom bu yàgg booba ah, xam naa ni amul clip mais xam naa day toog fii rek di ko playback tuuti rek ah ñu ñu ñu ñu cos ci tuuti rek ah daal di daal di continuer sunu sunu sunu li nekkoon faaw ñu cos ci faaw ñu ne ci cas rek ah mu daal di yëkkati mu daal di ne ndax nee naa la ah, ñun dañuy fair play rek man fu ma dem rek fair play la ah ah Dieng jeng saala man fu ma dem fair play la ana am solo nee naa dañ koy suukal mbaa nu xorom ko rek bu ko laajtee ah? na nu koy waxee mais fi nga nekkoon neex na de balaa mu may indil son son rétro ah naa chéri koko ko mënoon yéegalal son bi rek mu daal di ci mu daal di ko oh, playback mën na nekk parce que les nostalgiques ñu toog di xaar euh, Baliya bi dinañ ci ñëw parce Baliya bi wax na ko woy na ko ci beneen version aussi boobu moom def na ko clip euh, dinañ ci ñëw léegi nii mais mais euh, fi ñu nekkoon école bi nga nekkoon loolu li nga wax nii dafa am solo. lu ñu fi nekk nekk war nañu dem xool jàng musique bu baax a baax dafa am solo ndax xam nga àddina day dox. waaw te ñun Sénégal rek moo ñu ñor. dëgg la te buñ tax damaa wax sànq ne ñun les grands musiciens les grands noms de la musique sénégalaise dañu war a jàppale xale yi. Mm-hmm. ndax il faut assurer la relève. il faut mm-hmm. assurer la relève. Uh-huh. kon bokk loolu. Mm-hmm. dafay baax xale yi xam ko. ndax bu ñu demee jàngi. bu ñu jàngi luñ fa am ko yi. kon da ciy baax dama la wax sànq ne la ku ci mel ni Chopin. Chopin un maestro de la musique européenne. Mhm. ba mu gaañu ko léegi war na ma deux siècles. waaye musique musique ba léegi dañ koy tëgg parce que dañ ko bind. Mhm. taw tey war nañoo war a toll tey di bind musique sénégalaise. Mhm. di bind bind musique Youssou Ndour di bind musique Baaba Maal di bind musique Thione Seck Ismaël Lo. xam di bind musique Xaar Mbay. pour xale yi nga xam ne ñooy ñëw ëllëg. bu ñu ñëwee bu ñu fi nekkatul ñoom. ñu mën a jaaraat ci loola. la. waaw loolu dafa am solo. Mhm. kon boog war nañ ci bàyyi xel. Mhm. ñu ngi musique baax baax na ko waaye ndeko mhm. jàng ko. ba xam lan mooy solfège. lan mooy do lan mooy roy lan mooy altération. lan mooy silence jàng ko ba mën koo bind comme ni ngay bind jëlee sa bic ak sa feuille di bind lettre. dëgg la war naa mën a nekkoon sénégalaise. ndax àddina day dox. te tubaab bi kayit la ñu xam. kayit waaw bu ñu mënee te ñun li ñuy taxaw suñu taxawaay mooy jaay musique sénégalaise sur le plan international. waaye ko nag il faut que ñu koy bind. ne tey. Euh, musique bu mel ni Ismaïla Lo Taajaboon c'est international toi bi dañ ko bëgg ah ak musique baax ma dañ koy dañ ko bëgg lool mhm. parce que daf yoo xamante c'est classique mhm. te tubaab bi ñoom noonu loolu fecc mhm. ndax dafa euh, ñaari tempo yoo xam ne lu jar ràññaatle mooy sur le plan ternaire ak binaire kooku c'est des termes euh, solfège binaire ak ternaire binaire moom la tubaab bi fecc mooy lu oyof mais bu dee terneer nag. Mhm. mooy mbalax bi ñuy fecc ñun. waaw oh. ndax tubaab bi ñu mënuñoo fecc mbalax. Ah. waaye am na noo xam ne noo ko solfier. Ah. ba ñu mën ci ko gis seen bopp. d'accord léegi ko ko bi dañ koy may les nostalgiques. faw faw ko koko jàll. ndeysaan macha allah ah, buñ la delloowee démb lan la lay def. <laughs> mais Mariam da nga ma dellu da nga ma delloo démb. waaw da cee bokk. ma delloo démb wax na yàlla lu yàgg la. dëgg ndax lii bi ma koy boobu j'avais 14 ans fukki ñeent laa am. Ah waaw mu doon wax yàlla mu amoon succès bu rëy ci Sénégal war na ma léegi 40 ans léegi. macha allah ma déggee xale bi woy ko. Euh, Amira. waaw ma kontaan ci nag trop. Mm-hmm. ndax loolu moo lay woon muy sénégalais yi ngi dox. Mm-hmm. ndax sama attaché de presse Pape Boole moom ma njëkk woon ne ma déglul ji bi xale bi li muy woy. Mm-hmm. ma dégg xale bi li mu woy ak fi mu woyee moom. Euh, muy beneen registre mu doon la loo xam ne musique day dox. te dafa dekkalaat woy bi xam nga loolu xale yi xamul woon séeri ko ko Amira tax na ñoom ku ne wëri na waat wëri na waat ancien bi maanaam xale yi nga xamante ni ah. euh, nouvelle ah génération bi mhm. ku ne wëri waat na séeri ko ko première version bi ba pare soo ngay dégluwaat ma euh, kontaan ci nag bi ma kontaan ci nag bu baax a baax loolu moo lay wax ne mi ngi sénégalaise mi ngi dox Mariama loolu moo mi ngi sénégalaise mi ngi dox dañ ah, leen jàppale nag asalaamaaleykum mmh. waaw ndax xale yu gën a ëllëg te ñoo yoru musique ba ëllëg. kooku. waaw man la. yow la kan. eh waay. la jéem <laughs> yow la. maa ngi dëkk Thiawé. waaw jéew na def. maa ngi fi. yaa ngi si jàmm. jàmm rek. waaw maa ngi si jàmm. alhamdulilah ñu ngi kontaan ci yow. Pape Diouf waaw bi muy tourné ci bu baalu yaay bi. waaw. professeur maam la ko tourné woon. ndeysaan. Grand Dakar. Ah, mhm. dëgg la. li mu doon tourné sax man ci clip bi. Mhm. waaw. fan yii dama koy gis ci téléphone sama xol sedd ci lool. wallaay billaay. ndeysaan kontaan ci moom. ndeysaan damaa toogoon yàgg gisatu ma ko. waaw moo tax ma ne xaaral nañ kontaan nañ. waaw. jërëjëf. loolu gisee ba léegi sama oh, ndax loolu yàgg na trop. ndax boobu maa ngi nekk jàng sa temps yi moom. léegi meer laa. <laughs> Ah. na dëgg wax na dëgg. ci lañ bokk ñu may leen chéri bi. dafa yàgg. sincèrement ma doon tourné clip bi. Mm. ndeysaan. mooy kër ñoom Aïssa Sall. kër ñoom Aïssa Fall. dëgg la Grand Dakar. waaw waaw. Mhm. baal yàgg. wax mm-hmm. na dëgg. waaw jërëjëf Diaw. Mm-hmm. waaw kon loolu laa ko a sa xam-xam yi daal ko jërëjëf jërëjëf xam nga sama xol bi da cee sedd bi ma doom yi. ndeysaan ñu ngi koy sant bu baax a baax jërëjëf waaw euh, euh, jërëjëf ñu ngi leen di sant ba léegi 78 la 1 2 3 68 68 ñu dalal fi ndaanaan kullu fadrin dañu dinañ ci àgg macha allah ndax li ko wane rek mooy émission bi gis ngeen appel yi ñu ngi jéegalu ci ñi nga xamante ni ñoom it duñ leen mën a jël mm-hmm. ndax bu ñëpp lu ñëpp songandoo moom vraiment dina am toujours ñuy am ak ñi nga xamante ni vraiment mm-hmm. dañuy jégalu bu baax a ba ba tey mm-hmm. sa émission leeral show file ci leeral TV tous les samedis lay am à partir de 22h ñu daal di dalal ndaanaan tey di suñu papa euh, suñu xarit. allo suñu nijaay. Euh, papa ji bi baax salaamaaleykum. allo. oui salaamaaleykum. sëñ bi nu ngi lay ziar. Euh, dama bëggoon wax ak Pape Djibril moom waaye. ayca waxal moom lay dégg. Euh, xam naa ne su ma ko su du ko wax tur bi mais dafa am lu mooy koy wax rek mu xam kan moo koy woo. ayca. <laughs> ne ko xas ba ne woo kon. xas waaw kooku ndeysaan Yaxya bu number one. ah kooku damay dégg ñu naan Yaxya sama moom nag ñoo def number one. <laughs> waaw kii fu ne yóbbul fa ñu sénégalais mu Yaxya di artiste bu mag mm-hmm. waaw wax dëgg yàlla mm-hmm. kontaan naa trop bi mu wootee mm-hmm. ndax loolu moo lay wan senegal benn bopp la kenn mun koo xar ñaar ñoo bokk ndey ñu bokk bàyyi te da nga wax sànq Mariam lu am solo danga nga ne ñi nga nekkaloon démb nan ngeen nan ngeen woon nan wu rafet di def lu baax di wax lu baax lu nar a ñaaw nga teg sa tànk ba mu rafet loolooy Sénégal. moom moom Yaxya mii nii lan la doon def. ci orchestre guitariste bi waaw parce que parfois damay dégg. Ah. si ah. rétro yi may mm. déglu. Mm. wala yi may teg si rajo ba damay mm. dégg ñu naan Yaxya. mu ngi nii Yaxya ngi nii wallaay wallaay. ku mën a guitare ba pare arrangé nag morceau yu bëri moo ko arrangé. waa mais Yaxya. allo grand guitariste. allo. dafa mel ni dem naa ah ñu ngi jéggalu ndeysaan dagg na mais toujours 78 la 1 2 3 68 68 musique bi dañ xale yi dañ ko war a jàng. musique bi nga ne. allo sànq moom daf ci def lu bëree bare moom mhm. yaxe mi ñu doon àndi def. Mhm. waaw eh, Pape Djibi waaw. dafa mel ni moom demul. mais nañu déglu ci téléphone bi dañuy déglu ci téléphone bi nga bañ ñu déglu si si télé bi. Salim. allo. waaw naka mu soxna si. waa sëñ bi mel si téléphone bi rek mu daal di gën a neex. allo. voilà fay naa son télé bi. aha. léegi léegi mën naa wax ak moom directement. voilà Aïcha waxal ak moom mu lay dégg. am na nag am na li nga xam ne maag moom dañ ko nas. ndeysaan ci fan yii rek yii paase. dëgg la. Euh, maa ngi koy wax ne sama xel a ngi ci bu baax. ndeysaan incha allah dina am li nga xam ne dinañ ko def ci Sénégal yëpp dinañ yëg ne. Mhm. ah am na lu xewaat lu bees. Mhm. ndeysaan. li nga xam ne dañ koy nar a xam nga li ñuy wax cin lu mag mooy togg dëxin. Mhm. dëgg la. te cin lu mag bi dañ ko raxasoon dëpp ko doon xaar xale yu set loxo. pour mun a toggaat. waaye gis nañ ne daal xale yi nekk fii. Mm. ku leen wanul yoon yi du togg lu baax. <laughs> moo tax ñu fas yéene ñëwaat. wallaay taal fourneau bi. teg mm-hmm. cin li toggaat lu mm-hmm. bees. dëgg la. ci ngeen bokk nag foog ngeen ñëw gunge xale yi. Mm-hmm. incha loolu moom lu ñu taxawal la ba pare. waaw waaw foog ngeen ñëw gunge xale yi waxtaan nañu ak Pape Djibi ba pare. Uh-huh. ak ñeneen ñi nga xam ne yàlla def na ñu ngi eh, fii ba léegi. dëgg la. Ah, bu soobee yàlla dina am daal li nga xam ne dinañ ko delloo si ci jamono jii ñu nekk nii. incha allah. incha allah bu neexee yàlla. incha allah rabi duñ ko wax nag parce que dañu dañu bëgg nekk mu nekk surprise bi nga xam ne. ah xale yi dinañ ci wax wax rëy rëy léegi yow yow fi mu toll nii. ci xale yi fi nekk noonu nga xamante ni da ngeen dëppoon seen seen cin li doon xaar xale yi set loxo daal di ci bokk. ba ngay xool ba léegi amoo benn xale boo xamante ni yaakaar nga ni bu boo bu ngeen dëppee cin li ñoom dinañ ci mën a dugal seen loxo. am na mais xam nga Pape Djibi dafa am lu wax dafa am lu mu wax lu am solo. waaw. sànq dafa ni xale yi foog ñu jàngaat. dëgg la jàng ci musique te loolu liñ koy defal. ñi ko ñu ko ñu leen ko mën defal. mooy sëriñ su mag si ñu fi nekkoon musiciens yu mag yi fi nekkoon. Mm-hmm. am na ñu dem nag mais am na ñu des. dëgg la ñi def na xale yi bu ñu leen jege ñun du ñu xam dara ci li ñu doon def ñun. ndaxte ñun fi ñu jëmee woon musique sénégalaise. Mhm. dañ ko xaw a dañ ko xaw a dévier. Mhm. wóor na yàlla ne bu fekkente toppoon nañu li ñun suñu tànk yi nga xam ne fukk ñu topp ci li ñu ko tracé. tey mhm. ji musique sénégalaise dina nekk une musique internationale bi nga xam ne foo dem ci àdduna. di nga ko fa mën a dégg daf nga xam ne kii mooy musique sénégalaise comme yeneen musique yi parce que Congo mm. bu ñuy joué di nga xam ne ñii ay congolais lañu guinéen bu ñuy joué di xam ne ñii ay guinéen lañu mm-hmm. ku ci nekk chinois yi ainsi de suite Sénégal daal la ñu xam ne su ñuy wax musique sénégalaise ligne bi rek la ñuy dégg mooy li ci gën a bari ay sabar ak i tamaak yooyu mais télé télé i dafa am mélodie mélodie nee nañ dañuy ambiance nga xam ne mooy mélodie africaine uh-huh. mélodie africaine ñun Sénégal uh-huh. dañ ci am eh. wàll bi nga xam ne mooy gaam sawta. dëgg la olof yi di ko wax foddat bu tooy ak foddat bu wow. kooku boo ko xamulee doo mën a dem fenn c'est pas mhm. possible. Mhm. dañuy def rek waaye duñu dem fenn. Mhm. voilà. dëgg la jërëjëf. jërëjëf Yaya. Yaxya <laughs> Yaxya Fall. <laughs> macha <laughs> allah waaw lan ngay yokk ci li wax. am wax na lu am solo. dëgg la ndax euh, dama wax sànq ne. musique Sénégal dafa yaatu. Mm-hmm. te xale yi nañu déggal mag ñi di leen jege. du dëgg waaw ndax Sénégal day dëkku culture di ko aar mm-hmm. te dafa baax nag bala ngay génn loo xamante ne dañ disque lay doon wala loxo lu mën a dëttal Sénégal yi war nga ko defar ba mu baax. set ko defar ko ba mu mu set nga doog ko dëttal Sénégal yi bañ a yàkkamti gëstu jege mag ñi waa sotti toog ñoom xalaat mm-hmm. ndax àddina ñu mottalante rek àddina kenn matul dañuy mottalante rek di dëgg te ñi comme ni ko yax yaa waxee looluy dëgg ndax ñun ba ñuy musique number one xam nga succès bu ëppee day sonal borom dañ leen toog ba daaw ñu noppalu. dëgg la ñuy voyage fu ne bu yax moom du ma bàyyi du ma xam ne li wax fu ne leen daan dem di représenter Sénégal li lay wan ne musique Sénégal daan na mi ngi dox. Mhm. kon boog comme ni ma ko waxee sànq rek. Mhm. waaw na xale yi jege mag ñi. jàngi comme na ko defee waaw jàngi waat. Mhm. yaatal musique ndax dañoo war jaar. musique sénégalaise sur le plan international. ndax Sénégal euh, dañu am way te loolu sunu maam yee ko liggéey nag ndax ku dem bitim réew xam ne Sénégal am nañu. allo lu maam yi liggéeyal. kon loolu dañ ko war a yaatal. allo ndax Sénégal yaa ngi fépp. asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si. ñu ngi lay ziar bu baax a baax soxna si. maa ngi lay delloo ziar ma belle. alhamdulilah yal na yal nangu ziar. foo ni woowee. ok ok man j'habite au point E. point E. waaw damay woo ah. Pape Djibi parce que c'était un ami de mes parents et ça m'a fait plaisir de le revoir. Ndeysaan. waaw wax ko grand Modou Amar ak mère Maguette. mu ngi nous a bercé quand était enfant quoi. on est très nostalgique suñu xel dellu na ci parents yi quoi. oh la fille de Modou Amar. voilà c'est ça sëñ bi. voilà tur bi naka la. Euh, Aïda je m'appelle Aïda. Aïda Amar. doom la sa doom moo woote xolam tooy na tey papaam sama xarit la woon. Mhm. député la woon. waaw naa yaxam sedd. amiin voilà amiin amiin di jàppale moom mu député bu fas melu maa ngi fréquenté euh, ñoom Pape Seck ak yëpp. dëgg la dëgg la. voilà c' est ça on est euh, très content après ñu naa jël sa numéro on t' appelle déjà kër gi ça nous fera plaisir. d' accord incha allah Amar merci. voilà merci beaucoup bonne soirée. jërëjëf jërëjëf mm. kontaan nañ bu baax a baax 78 euh, la xale yi dañoo war a jàngi d' mm. dem nga France daal di jàngi mais mm. mais li ma jaaxal ci mbir mi mooy. France nga nu tàggu woon ñu dékki dékki. dégg la Suisse ba indil nga ma loo xamante ni exclusivité la. Ah. Euh, ci suñu. suñu suñu téléspectateur mhm. muy jokkoo album bi génnagul mois mhm. d'août la war a génn ah, le 7 août lay génn sur le plan international d'accord jokkoo la tudd mu nekk Pape Djibi Ba et Swiss African euh, Orchestra voilà euh, mooy ah, moom ñoom nga ñoom nga duyool sa sa sa album bi waaw wala ñoom ñooy sa groupe mooy su ñooy sama groupe léegi yow nan nga def ba jóge France daal di dem Suisse ba rencontrer ñi nga xamante ni ñoom nga bokkal groupe bi très bien bi ma nekkee France mhm. non seulement bi ma paree jàng musique dama doon dama doon musique aussi yoroon naa orchestre waaw mhm. ah, ba ma fa nekkee daan naa def ay animation 4 avril bu nekk mhm. maanaam tëgg ci ambassade bu Sénégal en France dëgg la nga xam nga sénégalais yi ñu ngi fépp ñu ngi bëgg na gis artistes sénégalais yi waaw wax dëgg yàlla ñu rafetlu ko nag loolu wax dëgg yàlla ndeysaan <laughs> festival dem nañ festival def ay tournée fu ne uh-huh. bu fa jógee nag ci leen yaatal mbir mi uh-huh. euh, dem Suisse uh-huh. ndax Suisse it ñoom ñu bëgg Sénégal te loolu sant yàlla la. moom fu ñëwee aussi ñoom ñu yaatal ma. Euh, ma monte groupe bi. ak des grands musiciens de la place. ñoo xamante ne ñu génn école de jazz bu Suisse bu Berne. d'ailleurs ñoom ñoo financé état Suisse ñoo financé album bi. album bi nga xam treize titres la waaw mhm. waaw ma leen di ci taxawaay ma leen di remercier. dëgg passage ndax ñoom ñoo ma jàppale. Mhm. ba ma génn album international bi. Mhm. album international bi nga xamante dafa war a génn treize titres la macha allah. Euh, si biir album bi am nañ si sama jigéen. waaw am nañ ci tamit Papa Djibi Ba et the Swiss New Look waaw uh-huh. mm-hmm. euh, bu bu sama jigéen bi moom xam naa ne ñun nga ciy rendre hommage. waaw sama jigéen jigéen ñi ndax yéenay waral lépp yéen. jigéen ñi waaw buñ ko mënoon am moom. wala buñ ko mënul am rek nga acapellal. ñu ko fi yéenay ndey moom. ñooy lépp yéenay lépp. Ah, waaw jigéen moom moo tax ñu sargal leen. sama jigéen kaay ma dénk la man nga ndaw man nga njiit woo naa la waxtaan ànd liggéey mooy jàmmi réew mi gëstu mooy doole kooku jigéen ñee ko moom loolu loolu rëy na riche na képp kuy jigéen da nga ciy gis sa bopp après mu am papa Djibi Ba et de Suisse mooy deuxième bi waaw mhm. waaw ñoom it wax dëgg yàlla ñu ma jàppale la ñu ñoom groupe afro suisse ba Mariama loolu tax sax ma ñëw tey Sénégal dama leen bëggoon indi ñoom bu def ak ñoom tournée loolu moo a indi. Mm-hmm. pour def une tournée internationale. Mm-hmm. dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Suisse. Uh-huh. ndax ba ñuy demee toog waxtaan dañu bëggoon def une tournée internationale mais ne leen nañu jëkkee Sénégal. Mm-hmm. ndax Kolof Ndiaye di ko waxee. picc nga ci suuf xel maa ngi ci suuf kon fàtte woonu. ndax Sénégal moo ñu ñor. Sénégal rek moo ñu ñor. fu ñu mën a dem drapeau Sénégal la ñuy yóbbu. daayaay Sénégal la yóbbu. bu ñu toogee waxtaan may leen loolu moo ma indi nag. daawaati jig ñëwoon naa pour baliser les terrains rencontrer les autorités sénégalaises. il a deux semaines de cela. j'ai été reçu par le ministre de la culture. Ablaye Diop. ci le même projet Jokko. pour tournée bi nga xamante ne juste war na ñëw Sénégal. pour def une tournée. donc sous le haut patronage de son excellence monsieur Macky Sall et la première dame madame Faye Sall. macha allah mais parrainé. ay jawa le roi du mbalax Youssou Ndour maa jigéen sama xarit sama doomu ndey ndeysaan moom mooy parrain d'honneur bi loolu foor na beneen bi nekk le labour mooy troisième bi waaw le labeur kooku c'est un morceau le labeur autant pour moi waaw le mhm. que mhm. album bi mhm. dafa dafa dafa diversifié parce que dañ ci woy olof di ci woy tubaab looloo neex waaw te ñi nga xamante ne ñoo génn album bi ay allemand la ñu ji sama label ñoom laa signé toom un cinq ans pour naa ne pour la vulgarisation de cet album Mm-hmm. ñoom ñoo mën a jaay album sur le plan international. faaw ñu waxtaanee ko euh, Alboury Ndiaye ngi ci biir mooy quatrième morceau. Alboury Ndiaye moom jaruma lay laajte moom xam naa moom waa Suisse ñoo lay boobaa nga jaay rek Alboury Ndiaye gën a jaay Sénégal Alboury Ndiaye la ci Jolof. waaw waaw mooy Alboury Ndiaye te lool wax dëgg yàlla sama maam la. Ah, waaw kooku Ndiaye ndi war ci buur ne Ndiaye ne Alboury Ndiaye léeg-léeg ma dégg sax ñu ne Sénégal Ndiaye Ndiaye la sant di waaw Jolof fay tax nag. Sénégal nu sant nu dul Ndiaye yéen téléspectateurs yi seede leen ma. <laughs> Jolof fa tax waaye waaw. Ah, ñu fi daal ñu fi xëccoo gi bëri ndax séeréer yi nee na ñoo moom Sénégal. waay yow tukulóor yi nee na ñoo moom Sénégal. waay bàyyi nañu ñi dañ leen di ñamal fi mu toll ah, nii rek ndax Marème Faye ak ab ab ak kii eh? <laughs> waaye xam nañ ni Sénégal moom eh. Ndiaye la sant. Portugal ñoo bokk lépp loolu moo tax benn bopp la kenn mënu koo xar wallaay looloo ci waaw wax dëgg yàlla kontaan nañu trop cinquième morceau bi baax waaw borom baax loolu moom seen suñuy valeur la ah waaw waaw waaw borom baax ndax baax moo am solo wallaay ndax àddina juboo ci solo uh-huh, Mariama uh-huh. àddina uh-huh. juboo ci solo te yàlla dimbalu na ñu Sénégal euh, dañoo jubo bokk ndey bokk bàyyi koo gis daf ko ni sa bopp loolu mooy Sénégal ndax dem lente ak fekklente mhm. mooy àddina waaw te loolu mooy Sénégal nag mooy Sénégal suñuy valeur lañu macha allah beneen bi nekk ndongo daara mooy sixième morceau bi ah ndongo daara kooku nag ja xale yi ngay waxal xam nga ndongo daara ngay waxal daara dafa mel ni laay mbub sa idole woyoon na ko laay mbub lu ne woy na ko ah. laay mbub xam nga sànq ma dama la wax sànq ne ba may ànd ak laay mbub j'avais quatorze ans uh-huh. euh, moom xam nga ku yeewoo ci par keppaaram euh, di ci jëlee am loo ci for uh-huh. ndax moom yàlla dimbali woon na ko dafa moom capacité fent Ablaye mu ku mënoon fent la waaw bu ñu mësaan di way man ma ma la daan woyu cuux j'étais maa ci gënoon tuuti daan ma cuux ma këf fourne bi commencé boyal bu ko defee ñu boyal commencé way mais bu ñu yàlla dafa ko mën dafa mën a fent. bu jëlee benn mos woy ma woy ndonk daara. man man lan nga sama jigéen lu ne woy na ko. woy laay mu bi ban nga ci gën a jàpp sénégalais sénégalais sunu gaal. joob leen yente man ko loolu Sénégal ngay waxal. waaw. Ablaye Mbuub lu ne woy na ko fi. mu woy valeur du Sénégal nag. waaw mhm. Sénégal woy na ko. nee naa ci jamono woy Sénégal. waaw waaw wallaay. Ablaye Mbuub yàlla na yéex a sedd. amiin. waaw moom nag daf nal nanlal ci loolu. Uh-huh. ne lépp looy di woy na ci jariñ li doomu adama yi. dëgg moo tax. ci tànk bi la ñuy sukkandiku. dëgg la di way loo xam ne ko way dina mën a jariñ. dëgg la Sénégalais yi. yéen noonu ngeen doon jëfee maanaam da ngeen doon jël valeur u Sénégal yi. di ko gëstu ngeen di ko ngeen di gën a valoriser ci ci ay way. dëgg la mais boo gisee ku mel ne Ndiaga Mbaye mm. lu mu way way dootu fi jóg. ndax lépp lu mu woy téere la. téere la jàng la. Mm-hmm. ku ne Abdoulaye Mbuub mm-hmm. lu mu lu mu mës a woy la. moo tax ñu naan taalifkat waaw wax dëgg mm-hmm. yàlla. loolu dañ koy yéeme ne ko rangele ko ba mu neex. Mm, dëgg la dégg nga de mm. Baliya ngoog Baliya dellu siwaat na mais am naa clip bi bu buñ ci waxee ba pare rek daal di ma ko may kaleel ma baaliyaa bi mais mais mais baaliyaa bi dafa dafa dellu si waat kon ci jamono woyoon nga ko moom démb te ah, album bi gisaat naa fi baaliyaa waaw loolu ah, naa ko ah. ñamal léegi gars yi <laughs> nga daal di ko gën a safal baaliyaa démb beeg bu tey bi duñu benn ah waaw doom Assane Ndiaye xam nga ndaanaan la Assane Ndiaye ñëw day waykat Assane way wayaakoon la Assane Ndiaye <laughs> wayaakoon la ku mën a woy la dégg nga fi mu waayet baaliya léegi fi mu toll yow da nga sa baaliya bu njëkk bi léegi fi mu toll yow da nga relevé défi bi ma ne ko Assane yaa ma dàqale li nga ma ne ko Assane yaa ci baaliya dafa rëy eh? waaye nag ñoom ñëpp xale bee xale Amira li mu woy ci chéri kooku dafa rëy mais Amira est toj na fi ah. bi ba pare après ñu waxtaane Amira na fi Amira li mu woy ci chéri bi mon trésor en or ah kooku nag c'est mon ah, trésor en or mooy sama soxna moo a jàppale tamit waaw ku ma jàppale la moom Chakratulaay mm-hmm. Ba uh-huh. moom tey su ma amee tey ba am audience au niveau de l'état suisse mm-hmm. yàlla ak mooma la mm-hmm. moo ma jàppale dugal ma ci Suisse ba ñu ubbil ma seen bopp euh, macha ma jàppale guddi bëccëg moo tax titre bi titre bi riche na de. Uh-huh. partie de moi. jàppale ma nag ci lu bëree bare dama la wax sànq Mariama sànq bu yàggul dañoo dem dëkk bu ñuy wax mu représenté fa Sénégal euh, artistes yi fa ñëwoon ak groupe yi fa bari woon festival bu mag la woon waaye bi ñu ñëwee groupe sénégalais ñëpp a jóg loolu moo lay woon ne wax yàlla sant yàlla. looloo loolu sant yàlla. sénégalais dañoo am bayre bi nekk président ñëpp naan sénégalais sénégalais sénégalais sénégalais ma leen sénégalais la. nekk sénégalais du <laughs> yàlla. léegi benn neuvième morceau bi nekk président. waaw président yaa ngi bàyyi xel njiit gi de. waaw waaw président waaw moom ah, si na nga maa ngi fi maa ngi fii. na ngeen def ak coono. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax tur bi naka la. waaw ah bi dama koy leb. d'accord la <laughs> ngi woote fii Caaroy Gaar. Caaroy Gaar waaw. mais Pape Djibi Ba député number one. ndeysaan. waaw nga xam ne man géejawaay laa dëkkoon. waaw. mais am mais am samay grand frère yu bëggoon numba woon. ndeysaan. ñoom Pape Serigne Dagana Seck ak euh, ñëpp daal ñoom Maguette Ndiaye ñoom Dou Sow. Mhm. temps yooyu ñuy woy lu neex. ndeysaan. temps yooyu la musique neexoon. ndeysaan parce que da doon doon déglu musique nga xam ne lii musique bi tama beeg yëpp ñu ngi ànd mais neex na. ndeysaan. waaw ñu ngi kontaan moom nag. jërëjëf. waaw man mu ngi kontaan moom man man man fan sa number number one laa woon. ba léegi nag maa ngi ci musique démb. ndeysaan wallaay. waaw maa ngi kontaan ci yéen. jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax merci beaucoup. jàngeen jëf merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf ñu ngi nekkoon ci album président. waaw maanaam yaa ngi bàyyi xel njiit gi ak nan nga gisee suñu njiit tamit. faaw ñu waxtaanee ah, ko loolu dina parce que <laughs> Macky Sall mooy Sénégal. waaw président Macky Sall moom Sénégal ko fal. kon boog na ko ñëpp jàppale. Mm. te xam ne jàppale ko mooy jàppale Sénégal. Mm. ndax dama la wax sànq ne lam du yëngu. benn du yëngu. kon boog na ko ñu ndax moom Sénégal ko fal. Mm-hmm. kon boog gannaaw Sénégal a ko fal na ko ñu jàppale. Mm-hmm. te xam ne euh, loolooy doxal réew mi. Mm-hmm. waaw ndax dama la wax sànq ne Sénégal foofu fu ne nekk yaa fa teewal sa réew. nit ku ne di doomu Sénégal. war nga fa doon ambassadeur waaw waxin war nay rafet doxin war nay rafet te xam ne lépp Sénégal la sottite ak def ci la lépp Sénégal la lépp booy dégg jëf jëf yu jëf yu ñaaw yi nga xamante ni parfois yenn sénégalais jumba def ko foofu mm. euh, ci ci ci ci ci extérieur bi mm. lan la lay def loolu ah, di ko ñaawlu nag parce que loolu du woon Sénégal Mariama loolu du woon Sénégal damay gis ñu ne ci internet bi mm-hmm. di saaga loolu du woon Sénégal ah, Sénégal moo doon def lu baax wax lu baax allo xaaral ñu jël kii allo waaw leen ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax a baax. waaye yéen a ngi am jàmm rek. am nañ jàmm di ko ñaanal ñëpp. oui amin ñu bokk ñëpp. loolu bu defee rek day. neex tey woon na sama xol dafa sedd quoi dama kontaan trop. ndaysaan ku kontaan noonu nu mu tudd. Modou Sylla. Modou Sylla. waaw waaw jàmm gën Modou Sylla. jàmm gën gën Sicap Mbao. waaw man Fatou jaajëf ngeen ne la kontaan loo tey koo xamante ni waaw dama ko bëgg trop. ndeysaan. waaw man damay teesaat ay son si net bi laay dugg dem teesaat ay son di déglu ay son yu neex. mu mënu ma déglu yeneen musique ku moom. wallaay wallaay. waaw kon dañoo kontaan trop di ko ñaanal yàlla nag yàlla ko yàlla defal jàmm. amiin waaw defal ko wér gi yaram. Hmm? Mhm. defal ko gudd fan. Mhm. lépp loo xam ne moom rek bu ko def si musique bi rek yàlla ko suñu borom defal ko ay tawféex ak tawféex yu bëri. amiin waay kontaan nañ trop leen bàyyi na ñu ngi taaxir lu baax a baax. jërëjëf kontaan nañ. merci merci merci beaucoup merci euh, benn loxo du benn lam du yëngu. waaw benn lam du yëngu allo. allo allo. allo. waaw soxna si nangeen ngeen def. ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax sëñ bi. allo. voilà man euh, damay lecture bi. yow la. mais nag dinaa ah. la jox benn indication boo xam ne yow animatrice di nga xam ci mu doon. aha déglu ci téléphone bi. man je suis papa de Ben Ben Ben Ibra. le papa de Ben. te mu nekk en Chine ñoo dëkk ma ak waaw ki yow lay waxal. Ben. nee na non nee na papa de Ben. benn ban benn benn Mamina Jémé wala. benn benn waaw benn Ibra Ndoy ñun ñëw dëkk ma yow ay yow. waaw. dëgg la waaw allo maay papa yi Ngoone laay Ndoy. Ah, waa tonton <laughs> kii sama dëkkandoo la. booy booy <laughs> booy gaare booy gaare waa tonton kontaan naa. ndeysaan. voilà mu tonton sama xol sedd na. <laughs> vraiment dama taal yem ci ma ne naa la woo pour d'abord encourager la. dëgg la dëgg la. parce que je ne savais pas que tu étais animatrice dans Leral TV. Ndeysaan dëgg dëgg la dëgg la tonton kontaan naa maa ngi lay <laughs> ñaanal yàlla bu baax parce que yow nit ku baax nga voisine bu baax nga jarbaat bu baax nga doom ju baax nga te wane nga ko ci koñ bi. Ndeysaan jërëjëf jërëjëf. <laughs> ak ak bu naa yëpp. wallaay dëgg la. léegi yaa ngi euh, waxtaan ak un grand nom de la musique sénégalaise. ah oui ah oui. muy Pape Djibril Ba. Mm-hmm. Pape Djibi maa ngi koy fàttali benn show bu rëy bu ñu defoon au stade Iba Mar Diop ça doit faire trente mm-hmm. dafa am benn empli wala un élément de la musique bu ñu fàttewoon ak Kaolack Diourbel ñu indikoo dëgg la. Jo mu ngi fa woon. Mhm. était encore euh, un peu plus jeune mais mu def benn morceau bu mémorable keroog il a fait tous les stades. Mhm. ndeysaan. ñun dañu àndoon ak moom ngir le nëmboon parce que Yahya Fall dañuy fréquenter ba léegi. Mhm. génn na fi léegi. voilà alors toujours mu ngi à la maison Yaxya yow bu dinaa la commencé présenter bu ñëwee à la maison incha allah. amul benn problème tonton. <laughs> maa ngi lay encourage di kontaan ci yow en attendant ñu gisee ay yow. incha allah merci beaucoup merci beaucoup. yal na yàlla jàppale le Pape bi maa ngi koy encouragé. jërëjëf jërëjëf. il nous a il nous a toujours égayé te xam naa ne ba léegi incha allah mu ngi ñuy ay mag la ñu mais ñu ngi kontaan moom ba léegi ñu ngi euh, fàttali ko ay morsom yu yoo xam ne yëpp euh, tubarkalla macha allah. te ku correct la nag fi nga koy gis nii ku correct la. ku correct ba pare respecté doomu aadama. Donc, bon Allô? courage et bonne continuation Djiby bon, merci merci beaucoup merci beaucoup Laye Laye kontaan nañ jërëjëf. Ah, Laye Mokhtar eh, allez à très bientôt incha allah. incha allah merci beaucoup. moom moo baax rek ndax nee naa la euh, damay ñëw ba ci buntu këram daal di fa gaare hmm. macha allah te du wax dara mu ñëwee ne ma non maa fii bàyyi ko foofu muy ku baax rafetal koñ bi ñëpp la ñëpp la ñëpp la respecté jox ñëpp cër macha allah hmm. ba ku ko gis tamit daal di ko jox ndax nee naa nit ki moom balaa ñu hmm. lay jox cër yow yaa koy jox sa bopp ba pare ndey laay maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu maman maa ngi nuyu waa kër ga léegi ñëpp macha allah ay te bi ñu pose tuuti daal di dellu si si album bi parce que faw ñu waxtaane ko tuuti balaa ñi may tegal Hassan mën nga ma kaleel euh, Balia bi mooy nouveau bi ah gars yi déglu ko ndax Balia boobu moom dafa ñëw défi défier si Assane Ndiaye xam naa moom. Hmm. loolu nga def si mais garaawul hmm. Assane Ndiaye moom xam naa na na préparé. Hmm, af la <laughs> bi ñu paree ci président nga xamante ni yaa ngi koy gërëm. man est-ce que du tax ngay gërëm président. waaw xam nga c'est dans la coopération entre le Sénégal et la Suisse. ah te mënuñu fi sos lu mel noonu te jiitaluñu ci président. dëgg la. wax dëgg yàlla euh, bu yàggul dama la wax sànq ne la.

na ma ko waxee woon rek li ma saf ko ko ah. macca ka xam immigré bu wooyee bu wooyee génnee morceau hmm. tur ba war na wuy borom immigré nag ay jàmbar lañu hmm. Mariama hmm. ku dem ba biti réew gis nañu ni ñu liggéeyee te ñoom wax dëgg yàlla Sénégal rekk leen ñor ndax ñu ngi daan seen doole bokk ndey bokk bàyyi kon boo leen fekkee ñu liggéey ci bitim réew da xam ne ñi wax dëgg yàlla nar nañoo ñu ñu ñu ñu jara bàyyi xel lañu waaw waaye nga ñàngaan mooy douzième bi waaye njàngaan kooku nag xale yee ko moom xale yi ndax njàng moo yor réew waaw njàng moo réew ak waa université kan dina war yokk xale yi gën a jàng góorgóorlu jàng eh. te xam ne jàng moo yor réew mm. waaw Sénégal jàmbaar woyoon kon woy euh, album bi mën gis naa si ñaar yoo xamante ni. Ah. Euh, yu ñu woy la daal di ko woyaat. Euh, te da ciy baax sax boo séeri ko bi sax boo ko toggaatoon dina gën a neex muy Baaliyaa bi. Hmm. ak ak ak jàmbaar Sénégal. waaw léegi bi kalal leen ma ko léegi nii kale naa léegi ñu wax ci ci ci Sénégal jàmbaar bi. mooy treizième titre bi. waaw Sénégal jàmbaar moom Sénégal ngay waxal. Hmm. ndax mooy morceau président Senghor. Ah. ñu ngi fàttaliku soixante-dixième anniversaire Senghor ñu ngi ko tëgg Méridien. ci Sénégal jàmbaar bii lañ ko tëgg mu amul succès. 70e anniversaire président Senghor Senghor waaw Sénégal jàmbaar lañ tëgg mu invité chef d'état africain yu bëree bëri ci méridien. Mhm. maa ngi koy fàttaliku. macha ci Sénégal jàmbaar bi mhm. moom lañ teg. Mhm. keroog bi nga xamante ne ñu ngi euh, nommé président de l'OUA. président Abdou Diouf. Sénégal jàmbaar la ñu teg en direct depuis Addis Abeba. ak Sénégal waaw. macha allah loolu c'est l'histoire. waaye c'est l'histoire. vraiment c'est l'histoire. après dinañ continuer waxtaan bi mais nañ ma may baaliyaa bi ah ñu daal di ko déglu baaliyaa bu ñu tàngalaat ceeb mu def Yaasan Ndiaye dañ ciy waxtaan dañ koy waxtaanee waat léegi nii bu ñu dellu see ubbite waat téléphone bi jaay ay ca ñu. baaliyaa baaliyaa. baaliyaa baaliyaa. sama kër laay bon fa wër naa baliya ah baliya baliya ah baliya ne me bu leen di wëreem te yokkoo góorgóorloo te leen toppatoo ndax ñooy sama kër laay bon fa wër naa am mbokk yi li am solo mul ko gàttañ am kilifaay solo déggal leen te nee la rafetlu nekk ni waree bu laawu ngay jëndee la dara adduna juboo ci am solo kon ànd war naa sant jaajëfati ñu delloo ci seen plateau leeral show fii ci leeral TV comme tous les samedis ça se passe comme ça dañuy am rek benn ndaanaan boo xamante ne dinañ ko fi dalal tey nag yaakaar naa ñëwoon démb yëngu nañu ñëwoon démb fàttali nañ leen dañu koy waxee jamonoy ah choléra ah jamonoy balarja ah, ak afro <laughs> mais Balia ah, Sidibé bii bi laataa may ñëw ci chéri koko bi moom dama lay tegal xale mi yëngal jamono. mais li ñu cëre ci waxtu bëregul sa bi bii nii Assane Ndiaye daf ko reprendre bi mu koy reprendre woo na la laajte la saavi waaw Assane woo na ma xam nga Assane nag artiste la bu mag la mhm. woo na ma depuis Paris mhm. xamal ma ne ko daf ko bëgg rab ma ne ko mais def ko loolu dara newu ci gisuma ci benn wàññeent ndax ñoo bokk lépp lépp uh-huh. Sénégal la c'est le uh-huh. euh, bu baax ndax uh-huh. artiste artiste bu mag la moom Assane te yàlla def na bi muy tëggee pare congrès à Paris daf ma invité daf ma Euh, euh, invité d'honneur. macha allah mu ñëw ñiig ci kaw scène bi. ñu mhm. wayandoo. Mhm. Baliya bi. Mhm. Sénégal yi nekk rafetlu ko lool. keroog soir bi dafa mujj transformé wu en en concert. déedéet kay. mu neex nag lool léeg-léeg wane Sénégal benn bopp la. kenn mënu koo xar kenn mënu koo xar ñaar. waaye tamit waaye tamit tout récemment tout récemment ci fama fama chéri ko boobu laay wax sax ah dama bëgg ñu ñamal ñu ci tuuti ba pare ci xale bi nga xamante ni vraiment ah mu xale bi tamit baat bi ah ah cette belle voix affectueuse et mélodique sax laa parce que vraiment bi moom macha allah mm, mm, mm. Euh, yal na ko yàlla la fa cat Amira tegal tegal ma Amira bi euh, vite fait ñu daal di dellu si si plateau bi daal di ko tëj ci jàmm ak salaam. sheri koko Llama-te Nello Wainala Sheri Samandana Llama-te Nello șofer Punau balai joli japă Toc ci de din yan lumyan Iala mei coco de găl Chile geara mei să domn bigel vraiment neex na ah fi yow yow booy bi xale bi dalaa charmé nii quoi <laughs> <laughs> non xale bi fi mu toll nii da lay doser ndaanaan ah? la ndaanaan ndaanaan la ne sooy la lay def naan la trop xale bi naan ko ñëpp ñàppale te xam ne lii mooy Sénégal uh-huh. ndax ku dégg xale bi li muy woy ci mm-hmm. benn registre la ko way ma di ko rafetlu nag bu baax a baax te xam ne loolu moo lay wane ne musique sénégalaise yi jëm si kanam ndeysaan comme mag ngi nan jàppale xale yi il uh-huh. assurer la relève uh-huh. li xale booy dafa mais li kontaan nga ci torop bu baax a baax moom bi muy génne wooy bi da nga jékki-jékki rek nga dégg ko moom mm. contacté wu la mais meroo ci yaakaar naa meroo ma ci te xam ne lépp la mm-hmm. man même amee du bi dama naan jël ay morceau jàmbur di ko woy bu na njaay laa jëkkoy bu ab jéem Abdoulaye Mboup la xale bu tuuti la kon bu ko woyee morceau woy ko lépp Sénégal ki gañ ma di ko rafetlu nag te xam ne yoon ñaan Sénégal yëpp ñu ko ñëpp jàppale te xam ne jàppale ko mooy jàppale économie sénégalaise kon fi mu toll booy dégg ñiy reprendre sa way di xam ne carrément la doon togg kon neex ñor na ndax lii man xam lu ma ko nommé moom xale bi la chérie coco de la musique sénégalaise. Amira la chérie Coco de la musique sénégalaise. déggal loolu <laughs> dafa rafet nga koy amee. <laughs> nee na Amira mooy la de la musique sénégalaise. looloo fort macha allah ah euh, Papa Djibi Ba moo ko nommé mm. Amira ah, la chérie de la musique sénégalaise ça fait vraiment. plaisir euh, mais kontaan nañ bu baax a baax di bég ci CD bi nga xamante ni indil nga ñu ko ñu am ko en exclusivité nga xamante ni da am projet boo xamante ni waa Suisse mais projet boobu projet lan la est-ce que ñun lan lañ ciy gagné projet culturel la ndax xam nga tournée bi la ñu envisagé woon def une tournée uh-huh. mais yàlla dogal euh, coronavirus moo tax ñu ñu ko uh-huh. Euh, suspendre ko ba 2021 yàlla ñu ci yàlla yóbbu jàmm. incha allah di ñaan nag Sénégal xam ne dañ nar nañoo am gan. jërëjëf ñu jël ñu jël ñu jël suñu auditeur auditrice bi allo salaamaaleykum. Ah, waaw waaw maaleykum salaam Mariama ci noonu maa ngi sant yàlla bu baax a baax. baat bi de xàmme naa ko. ah waaw baat bi ñii ñooy ñi ma defar ba ma jekk nii waa moderne salon mooy sa sa doom yi. Ah, ah insisté naa ñu ngi jégalu kontaan rek nag tey ci émission bi Mariama. jërëjëf. baal ma nga jox ma tonton Pape. allo. oui ñu ngi lay dégg bu baax. waaw tonton Pape Demba. waaw man la Fatoumata. waaw Fatoumata ñu ngi doon waxtaan ci téléphone. waaw jërëjëf jërëjëf kontaan nañu waaw sa jarbaat bi. mu wax ci yow lu rafet. waaw kontaan nañu. Mm-hmm. kontaan naa lool lool lool lool dañu mm-hmm. ñoo am lu ñuy yëg. ndax ñun euh, am leen loo xamante ni bokk nañ ko ci suñu jeunesse dund nañ ko ci yow. nekk nañu say bonbon say tàngal macha allah. dëkk rafet nag. image boobu ba tey dafa des ci ñun moo tax ñu laa fàtte. jërëjëf waaw ndax euh, nitu kese nga nit ku baax. bu baax bu baax ndax ku nekk xam na muñal xale tey tamit daan nga muñal ñëw sa mm. biir appartement foo mm, def lu nekk yëkkati say bonbon say tàngal jox ñu jërëjëf dëkkin gi rafet lool moo tax image boobu du ma sa denc mm. ndeysaan waaw jërëjëf kontaan nañ <laughs> yàlla bu baax a baax a baax amiin yàlla wéral baat bi amiin gudd fan xéewal baat bi moom gën a wéree rek ñuy gën a doon di sant. amiin amiin soxla nañ ko lool soxla nañ ko lool. jërëjëf buñ ko déggee gën a kontaan parce que suñu xale wéyam lañ doon foowee séeri koko bi. ndeysaan ak ñun bu ñu yeggee bi rek dañuy naan sama maam la wooy. ndeysaan euh, ndeysaan waaw moo <laughs> moo tax dañuy kontaan ci invitation bi bu baax a baax jërëjëf jërëjëf waaw tey moom dañoo kontaan lool. Mariama yow moom tamit euh, ñi lay ñaanal yàlla. Mm. amiin yàlla nafal la ca. mais nañ ñaanalante rek. waaw bàyyi la sa sago surtout si milieu bi nga nekk ñoo lay gën a ñaanal yàlla jàppale la bu baax a baax a baax a baax. amiin waay. waaw yàlla jàppale la bu baax ak tonton Ndoye mi dëgg léegi tamit lu lu leer lu dëgg la wax ndeysaan wilaay da ngaa neex sa dëkkal door ku yaru itam <laughs> jërëjëf waaw moom tam mu nekk suñu tonton bu baax bu baax sax ay doomam baax njabootam baax bu boole ñu njaboote wallaay kon yàlla na ko yàlla defal jàmm yoolu loolu ko sutura amiin yokk ko aar njabootam gi yëpp. amiin amiin amiin waaw mais kontaan naa lool. Mariama kontaan naa bég nañ bég merci beaucoup a jërëjëf kontaan nañ nee naa ko mooy borom make-up yu baax yi ci man gis ngeen sama kanam gi macha allah. Mm. moom moo fi jaar. Ah, te te bu ma kay daan tegal li sa loxo sax day bañ. macha allah ñoo may defar saa su ne dama dama jàkkaarloog waa Sénégal. Hmm? léegi nii dinaa joxe numéro téléphone am te tamit wax leen nag moom li muy make-upee dafa yomb torop naa ci ñëw léegi nii léegi projet bi pour ñu tëj parce que ñun vraiment. Mm-hmm. jeexal nañu xam naa da may bolokeel comme que téléphone bi comme que dañuy dese ci ci waxtu bëreetu. Mm-hmm. ah léegi projet bi nga wax léegi ñun lan lañ ciy gañ feeñe ñun Sénégal. waaw lu bëree bëri ndax xam nga comme ni ko ni ñu ko waxtaanee maak Iba da benn projet bi dañ ko perpétuer projet mm-hmm. boobu. bëgg nga chaque deux ans indi fi Suisse te Suisse bu ñuy ñëw dañuy ànd ak ay bailleurs de fonds. ñu xool ci yan domaine la ñu mën a liggéey Sénégal. Mm-hmm. initier des projets de développement sur le plan culturel. initier des projets de développement sur le plan social. initier des projets de développement sur le plan économique kon boog Sénégal da ciy gagné. dëgg la am. waaw lu bëgg na Sénégal euh, déwum réewum teranga la. Mhm. kon boo Suisse bu ñu ñëwee fii ganu senegal la ñuy doon. Mhm. ganu Sénégal la doon kon ñu ngi ñaan daal bu fi Suisse ñëwee. nañ leen yaatal recevoir leen te xam ne loolu mooy Sénégal sax. waaw Sénégal loolu nee naa la dëkku teraanga la teraanga fii la fekk baax. boo ñu indilee ganu Suisse nga xam ni carrément Sénégal da ciy jëlee njëriñ. Hmm. ñun sax dañuy wëlbatiku daal di la remercier. ndax macha allah bu la neexoon am nga li ngay am ci musique nga daal di dem toog boo gisee hmm, ay ay bailleurs yu war a ñëw sax tayal mën na laa jot ak sa tànk diis nga ne ah hmm. bàyyi ma bàyyi daal man daal duma ci sawar mais ñu ngi la ciy sant bu baax a baax. di leen sant yéen ñi nga xamante ni yéen ay cher. Euh, euh, Euh, téléspectateur mhm. sant nañ ah. leen bu baax a baax gërëm nañu leen ah. waaw di gërëm léegi ñun dañoo jeexal tàkk yaakaar naa émission bi di ah. gërëm it Iba uh-huh. Iba Dieng uh-huh. un grand journaliste uh-huh. mu ànd ak man gunge ma ci plateau bi waaw kon boog dina baax ma gërëm ko mooy sa chargé comme comme waaw mooy waaw eh, ndeysaan ak ñu wax Ameth Diouf ma nga ca kër ga moom mënoon nañ boo ñëwoon taxaw tamit da wax ñun moom nee la leeral daal la dëppay leer nañu ah, baax ah, di gërëm waa leeral ñëpp ah, di leen gërëm yéen yow di leen gërëm Mariama soxna Mare ak sanc bi rafet na waaw nii la xale yi sanc rafet na macha allah <laughs> te rek lii ma Sénégal wax dëgg yàlla wallaay di dégg na seen techniciens yi eh, ñëpp di eh. gërëm waa leeral eh. tey jërë ngeen jëf leeral li préparé woon ci émission yëpp daf ci dul xeej ndax mm. Euh, mm. lu ñu la bëgg a bëgg a posé question mm. téléspectateurs yi mel na ni ñoo ñu gën a bëgg a wax ak yow macha allah teg nañ la fi waaye ku xool euh, appel yi ak ñi nga xamante ni nee nañ ma ñu ngi insisté ba sonn ñi am sama numéro ak ñi ko amul nga xamante ni ñoo ngi doon insisté euh, fu ñu leen natt fu ne vraiment da ko da ko da ko wees kon ñu ngi sant bu baax a baax yéen ñi doon teewlu di xamante ni rek bëggoon nga ñu luñ fi waxul loo xamante ni bëggoon nga ñu wax ko. waaw ci bëggoon naa ci yokk tuuti ndax dañu créé li ma ci bëggoon créé moo dañu créé benn ak benn collectif sénégalais bu ne en Suisse. ñu créé fédération internationale des artistes sénégalais de la diaspora. Mm-hmm. loolu dañ ko créé ci Suisse mm-hmm. waaw siège ba ci Suisse la. benn baax kon sénégalais xam ko. Mm-hmm. te man mi may président bi. te dina baax sénégalais yi xam ko pour liggéey ak sénégalais kon boog ñu ngi woo artiste sénégalais yëpp. Thione Seck nag moom la jël comme parrain mooy marraine bi. kon yow man question bi ma la laajul sax mel na ni ku dégg say waxin xam na ni carrément que ni euh, euh, euh, dund bi rafet na dama la naroon waaj noo dundee ak yi nga xamante ni ñooy artistes sénégalais yi. naam koo fi yaa nga fële me daa mel ni relation bi nice na. parce que yaa ngi ne léegi nii sa projet. parrain bi mooy Youssou ma jigéen ñi. Youssou Ndour mooy parrain d'honneur bi waaw. Mm-hmm. mooy tournée bi ñu bëggoon def. te mhm. yàlla def feebar bi am ko mais terewul dañ koy maintenir. Mhm. mais Youssou Ndour mooy parrain d'honneur bi. Mhm. sous le haut patronage de son excellence monsieur Macky Sall et la première dame madame Faye Sall. waaye Youssou Ndour le roi du mbalax moom lañ def parrain d'honneur. mais wuy ma projet boobu moom xam naa ne ñun dañ koy direct de leeral. Hmm, faw ñu liggéey ci ñun ak yéen daal di ko direct waaw daal di ko direct ndax xam nga ni mbokk yi Omar waaw Omar Ndiaye sunu xarit moom it baax <laughs> borom témoin. Eh, ndeysaan ñu gërëm ko moom it. Uh-huh. wallaay di gërëm waa Sénégal gépp te xam ne ku lim juum. Uh-huh. léegi yow sa projet boobu taasukat yeeg ñëpp a ngi ci biir. ñëpp a mm. dafa yaatu. Mm. dafa yaatu projet boobu dafa yaatu. Mm. coopération culturelle entre le Sénégal et la Suisse. Mm-hmm. ñëpp xaj nañ ci. dëgg la kon ñu ngi woo Sénégalais ñu jàpp ci te xam ne bu gan yi Suisse ñëwee. Uh-huh. yaatal leen yaatal mbir mi te lépp mm-hmm. Sénégal la. d'accord jërëjëf sant nañ la kon yaakaar naa euh, fa la ñuy rek tàggatoo ba ah, beneen yoon. xaar projet bi ñu jox rendez-vous gars fii ci Leral TV. incha ci dañ ciy a a bàyyi xel euh, émission bu mag bi lee di leeral show beneen yoon beneen i feem ak ak ak bi yeneen i artistes tamit incha allah ñoo ngi leen di xaar fii nii ci ci ci ci télé bu mag bi te yaakaar li ñu fi jot a waxtaanee neex na leen téléphone bi laa bëgg a génne muy waa Moderne Salon euh, seen make-up tout tout make-up yëpp macha allah c'est à 3000 francs dama leen ko wax parce que euh, ñoom euh, ñoom vraiment dañ cee jàpp bu baax a baax bu dul woon ñoom xam naa làmbaay ñaaw defal 77 614 59 27 77. 614 59 27 make-up yi gis nga ni mu yànjee yéen ak may gis ah ah. yéen a may xool bu baax a baax xaaral ma gën a tegle sama tànk yi ndax mu gën a ma gën a dosé jeng quoi ah? ah jël leen ma rek xool ma sama tiitar gu metti gi ma nekkee ci réew mi ah dañ maa defar ba ma rafet ah man fa kii papa pap paa ji bi pap ji ba sunu pap ji pare na ci léegi da ngeen may jël man mii dama leen wax yu yu yu yu guy gii de jël ma en direct ah trois trois mille francs la koy defee nee na ma xoola dama dama da social dama social mille francs defuma 10 000 francs defuma 5000 francs Fatmata Moderne Salon mooy numéro bi ma leen jox léegi ñu ngi féete foofu ca Yoff jaa ngeen jëf te yaakaar li leen neex na leen bu leen neexee waaye alhamdulilah sama gaay bu ñu dellu si waatee indi suñuy feem indi suñuy doxalin ànd seeg équipe bu mat équipe nag nga xamante ni image bi day neex a xool rek ñu daal di dikkaat safaraat ba mu saf ndax nee naa sunu mbir mi bu nu ko suukaru dañu koy xorom ku ne jot si sa wàll ñu mën koo jëfandikoo leeral show la ñuy wax ak Mariama ci beneen show jàngeen jëf e bon week-end à vous merci beaucoup